maaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen baal wax te di leen balaax yéen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen mel ni bu ngeen gisee jotaay bi mu mel ni am na lu ñuy waajal loo xamante ni lu ñu yitteel la waaye it lu ñu ñor la muy lenn lu bokk ci ak jaamu yàlla waaye di liggéeyal Serigne Touba muy njàngum xasaayit ci biir njàngum xasida moomu ci la waa Touba Argentine mbooleem daara ak daayira yi fi nekk lëkkaloo def benn fédération di waajal bisub xasaayit bi nga xamante ni moom la ñuy amal le 9 juillet fee ca Touba Cordoba loolu moo waraloon commission conservatoire bu bu daara constitution amaloon benn ndaje boo xamante ni tey fas nañ ci yéene waxtaan ak mbokki taalibe yi ànd ceeg. waa Touba waa télé Touba Argentine TV bi nga xamante ni lépp loo xamante ni yëngu-yëngu lu ci wàllu diine ak yëngu-yëngu lu ci wàllu liggéeyal Sëñ ñoo koy couvrir fii ci dëkk bi ak li ko wër mu doon liggéey bu rafet bu sell boo xamante ni wax dëgg yàlla mbooleem kilifa yi fi jaar ak mbooleem jëriñu Sëñ yi fi nekk rafetlu nañ seenu liggéey naka noonu ñu leen ciy ñaanal mu sax te yogg te yaatu ci barkeb Sëñ loolu moo waraloon ñu feggoo ak sunu kilifa sunu jëriñ Sëriñ Baye Mbacke Jenn ak sëñ Xaadim Dia mi nga xamante ni moom moo jiite daara ji fas yéenee waxtaan ak mbokki taalibe yi ni ñuy waajale bis bi ak naka lañ ci fas yéenee duggee incha allah. jaa ngeen jëf mbokk ñuy seetaan kon ni mu ko waxee rek noonu la ñëwaat ngir waajal bis bu mag boo xam ne moom la ñu dëgmal fii ci Argentine muy bisu xasaayit bu ñu nee bisu xasida nag yaakaar naa xel dina dem ci kuréel yi nga xam ni it yaakaar naa ni ma ko waxee seenu liggéey lu yàgg la ci jamono diirub nekk sëriñ bi daa ko defal boppam daa ko deflu. kon yaakaar naa it euh, seenu liggéey dana fa ràññeeku lool waaye bala ñuy dugg ci dëgg-dëgg bis bi doon nañu jubloo xam tey kuréelu coalition nekk kuréel boo xam ni wax dëgg yàlla bu ràññeeku fii ci réew mi ci Argentine ci njàmbaar wax ni sax ku tegal seeni son bu ne la is bu sarax yàlla doo weddi loolu nag yaakaar naa ni Pastef moo koy def bëggoon xam rek nag ngeen def ba fondé ko taxawal ko ci barab boo xam ne bu xaat la ngeen ñëw fii ngir daan seen doole bëggoon nañoo xam loolu. waaw jërëjëf suñ góor loolu moom boo ñu ci laajee danañ ci sawar a tontu xëy na nag doonul loo xamante ni yombul woon waaye li gënoon a jafe suñ tubaab defoon na ko ci jëmm yi fi nekk muy pas-pas gi ak mën-mën bi ndax comme noonu ma la ko waxee ñi ma feggool ñi ñëpp muy sëñ Baye Mbacke ak sëñ Xaadim ak yeneen mbokk taalibe yi ci kuréel gi kenn ku ci nekk rek mën naa ni kuréel nga yoroon Sénégal jiite ko di jàng ak di jàngale di former ay nit ñuy doon ay jàngkat ba yàlla dogal ñu soppi suñu liggéey ñëw fii ci Touba Argentine mu doon loo xam ne dañ koy dund mu nekk ci ñun nekk suñu deret nekkit suñu mat ci liggéey suñu Touba muy njàngum xasita ak di ko jàngale loolu moo waral bi ñu fi teewee kuréel gi ñu ngi ko sos 2012 euh, ay boori octobre 2012 ci lañ ko taxawal ci biir loolu yi bi ñu fi ñëwee fekk nañ fi ay mbokki taalibe yu liggéeyal Sëñ Tuubaa maanaam lu mel ni ay daara ak daayira waaye comme que yàlla dogal na fi ñu féete woon dafa xaw a sori ñu gis ni lépp Sëñ Tuubaa la ci lañu waxtaan ak taalib yëpp ba jiboo ñu féete foofu di fa liggéeyal Sëñ Tuubaa xawoon naa jafe nag ndax lu mel ni réewi tubaab yi nekk fi di fi jàng dëkk ki tubaab ci benn kër di yuuxu comme ni ñu war a jàng xaste yi nekkoon loo xam leen jaaxal la ndax ñàkk xam gën ko ñàkk xam waaye wax dëgg yàlla dem nañ ba ci biir gis ci ak soppiku maanaam éléments yi kuréel gi gën a yokku waaye itam mbooloo mi tàmbali ko bëgg di gën a ñëw di ci di ci bokk waaye dem ba barab bi nga xam ne fa lañ ko sose woon sax xajatuñ fa ba yàlla dogal moom moo ñu indi fii ci barab bi tey ba suñ suñ waa defal nañ ci tawféex xëy na amaguñ ko niñ ko bëgg bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg waaye suñ waa ngi ci defal tawféex daal mu ngi mu ngi mu ngi dox tam mu ngi jaaru yoon. Mhm. jërëjëf defe naa leer na ci jéego ngeen dox ba fond liggéey bi muy liggéey bu am solo ñu xuus nag ci dëgg-dëgg bis bi maa ngi koy tudd léegi. buñ ko tuddee rek xel yu bari dana dem ci kuréel ni ñu ko ràññee ci réew yi nga xam ni it ñoom fi njëkk di dalal ay immigré Italie France mën naa wax ba Amérique daañu gis ni seen liggéey daf cay gën a fës bu fekkee dañu def ay li ñuy wax ay dox yéen ay jiitu ci kanam di di jàng demee ci tànt yi da ngeen ci ràññeeku loolu ci wàllu jàng mu mel ni kon loolu dina laaj ab wàccaay ci yéen woo xam ni du réer lay doon bëgg nañu xam naka ngeen koy waajale waaw ko waxee dëgg la ndax xëy na mboolem loo xamante ni maanaam liggéey rek ak wàccaay bu jëm ci bisu xasida bi ñoo ngi ci ñun nag comme noonu ko ko waxee <coughs> li ciy suñu mat ak li ciy suñu fànn mooy njàngum xasida ci biir loolu kuréel gi wax dëgg yàlla mën naa ne ñaari weer yii ci ginnaaw yëpp yëpp yëpp noppalu woon ñu ngi répété guddi ñu ngi répété bëccëg bañ nañ ko ba daanaka altine yi sax Euh, dañoo wàññi suñu heure yi liggéey di ñëw fii di yendoo répété loolu ak jaayante la koo xam ne waa kuréel gi ñoom ñoo ko sasoo ci bisu xasité bi ci biir loolu nag waa commission organisation am na benn dox boo xamante ni ñu ngi koy waajal boo xamante ni xëy na <coughs> ñoom am na nuñ koy organiser waaye ci biir euh, li nga xam moom mooñ ci engagé ñun jàngkatu xasité yi danañ ci ànd ak waa kuréelu Kër Sëñ Saaliw ak kuréelu capital ak kuréelu coalition gi ak gu Lignès ak gu mooy jànkatu xasida yi nga xamante ni ñoo nekk ci kuréel yi ci capital bi ak yi na ci promesse yi def ay sàppe yu rafet yor ay ay ay banderole yoo xamante ni ay mandarga lay doon yoo xam ne mbindum sëriñ bi lay doon ak ay nataal yoo xamante ni nataali sëriñ bi lay doon waaye itam ay affiche yoo xamante ni day wane ak di feeñal liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ci ci mbindum arab waaye ci mbindum espagnol bi nga xamante ni waa dëkk bii ñu nekk ñoom loolu lañ xam loolu defe naa waa commission organisation am na mbir yu bari yuñ ciy waajal ñun tam ñi nga xam ñooy jànkat xëy say incha allah rabbi ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax bu ñu àggee ci dox boobu ndax dox boobu moom mooy njëkk li nga xamante ni moom mooy euh, tàmbaliment bis bi nga xam ñu ngi ko war a def carrément ci biir salle bi kon daanaka loolu moom ñu ngi ciy waxtaan suñu biir ñu ngi ciy trouver ay consensus yu am solo yoo xamante ni xëy na daanaka fii may waxee sax mën naa ne ñu ngi ci dernier réglage yi kon daanaka li ëpp solo ci fànn woowu kon fi mu ne mën naa ne sumay woon na daal Euh, defe naa fànn googu leer na bu baax bu ñu leen déggee mel ni yéen a ngi ci wàccaay tànn ngeen ay bis yoo xam ne sax toute la journée da ngeen koy jàng ngir waajal bis boobu daañu séentu ci yéen ay daaj yoo xam ni nekkul woon yéen daan jàng nu koy gis bu ñu jëlee exemple ci is bu tarxiya bu leen màggal Touba mooy bis bi gën a mag ci ñoom boo xam ni dañuy génn loo xam ne rek kenn mësu ko dégg loolu ndax mu ngi ci yéen ci ay xalaat def ngeen ko war amul. waaw suñ góor loolu loolu ñu ñu ngi ciy liggéey commission bi nga xam ñoom ñoo yor wàllum njàng mi li ñuy wax comu euh, comité pédagogique bi nga xam ne moo nekk ci kuréel gi loolu ñu ngi ciy liggéey mooy suñ Baye Mbacke jenn mi ak suñ xaadim ak yeneen mbokki taalibe yi xëy na programme la boo xamante ni mën nañu day yendu ci biir loolu nag moom dana am njàngum sëñ Masamba dana am njàngum sëñ Alaaji Cissé waaye dana am njàngum sëñ Mayib am njàng yi nga xamante ni moom mooy dëgg-dëgg njàng nga xamante ni mën nañ ni ku ko mën rek daanaka li la dese ci njàng bareetut da ngay liggéeyaat rek ngir gën a mën a ngir ngir gën a mën a dabe waaye yooyu dana ci am waaye yeneen yi nga xamante ni mooy air yi nga xamante ni ay air la yoo xamante ni comme noonu nga ko laaj yooyu yëpp incha allahu rabi am na yu yuñ ciy waajal yoo xamante ni. jubluwuñ ci dara loolu liggéey suñ tubaab waaye jubluwuñ ci dara lu dul. fas yéene taalibe yi suñ tubaab yi déglu xasite yi maanaam bëgg. te it ñu xam ni maanaam air yooyu duñ du doon njàngum folklore njàng mu méngoog. xasaayit Sëñ Tuubaa yi lay doon. yoo xam ni daaju kuréel constitution la ba see su ko dégg si tar waaw incha allahu rabbi yooyu incha allahu rabbi danañ danañ danañ ko jàng yoo xamante ni mbokk taalibe yi toog. Mhm. ñoom ñoo ko liggéey ci seen biir. Mhm. incha allah ñu ngi ciy xalaat. Mhm. ñu ñu ngi ciy répété li ñuy ñaan rek mooy suñu borom defal ñu tawfeex ak wér. bañ fekk ko waaye lépp loo xamante ni moom liggéey suñu euh, kuréel kuréel laaj na ko ci biir liggéey Sëñ Tuubaa bi moom dañ cee fas yéene dox tàbbi duñ ci xaar kenn incha allahu taala. macha allah euh, xam naa daañu soxlaa ñam ci laaj boobu tuuti moo xam yow yaa koy kii noonu wala da nga koy ànd ak gars yi. benn bëy rek a nag si góor a. Mhm. <laughs> waaw posé vidéo bi tuuti. daañu la ko nangul xam naa du ñàkk ne da ngay bañ gars yi Prada la ak yu demee noonu boo defee ñëw ju paneen fànn gis nañu it ay kuréel yoo xam ne dañu koy tuddee kuréel national yoo xam ni it ñi nga xam dañu seq. doon ay ay ay kuréel ci dëkk bi ñoom ñooy tànn ay jëwriñ yoo xam ni ñoo gën a ràññeeku ci jàng mm-hmm. mu doon kuréel national ni ñu koy waxee ndax loolu it mi ngi ci yéen wala déet. waa loolu boo xoolee daanaka moom sa laaj bi sax dafa xaw a tombe ndax jamono ji yëpp ku ñuy wax sëñ Abdou Khadir Samb doon koo xam ni ku ràññeeku la ci njàngum xasida ca Sénégal gaa ñu dëkk nag ba fii ñu ne ci Argentine nekkoon kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah Daaru Xuddoos yàlla dogal mu bokk ci jëwriñ yi nga xamante ni moom moo ñoom ñoo nekk Cordoba fi ñu war a defee bisu xasite bi xam ne mën nañ ni wàllu programme njàngum xasite mi maanaam li ci ëpp ci loxoom la nekk ndax mooy suñu mag mooy suñu kilifa moom ak sëñ mut seen mhm. ak euh, sëñ Seexuna mi nga xam moo yor kuréel capital mhm. jamono ji yëpp ñu ngi ci doon waxtaan xëy na taxawagul taxaw koo xam ni mën nañ ni dinañu war di daje di répété wala ñu ni nangam ak nangam la ñu war a jàng waaye ci biir kuréel yooyu ñu la limal noonu am na ay jàngkat yoo xamante ni wax dëgg yàlla yu compétence lañ yoo xamante ni mhm. maanaam bu ñu demee tey ba ca bis ba mhm. maanaam bu ñu leen jëlee mhm. fu ne ñu jël fa ñaar wala ñett boole leen euh, ni leen euh, Busra wala euh, Mawahib wala Midaadi Masamba lañ bëgg jàng ci ci air sàngam rek daanaka dana nekk loo xam ne des na ko jàng njàngin mu am solo ndax comme noonu ma la ko waxee rek am na ay membres yu compétent yoo xam ne wax dëgg yàlla sonn nañ ci xase yi liggéey nañ ci. Mhm. Euh, ba tax na xëy na kuréel googu sosu sosoogul carrément doon firme mhm. waaye ñu ngi ci def ay xalaat waaye ñu ngi ci def ay waxtaan ba bu ñu demee ba ci bis ba lu mel ne kuréel Kër Sëñ Saaliw. Mhm. kuréel capital gu constitution ak yeneen kuréel yi fi nekk yëpp. fu nekk danañ fa jël ay quelque personnes boole leen mu doon ak barkeelu koo xamante ni. maanaam danañ ko barkeelu ci bi incha allahu rabbi nu ñëw rek kon xam naa jataay bi du gudd ci ponk bu mu jëg yow muy soññee bu jëm ci mbokk yi ci gën a jox war ma bis bi yaakaar naa ni ma koy waxee doon na bis boo xam ni mooy sut bis bu boo xam ni mooy événement murit yaakaar naa bu ñu sukkandikoo ci sëriñ bekki waxam ci xaside yi mu doon fi mu jaar lépp ak li mu def li ko ci gënal ci dalgaak mbokk yi nga xam ne dañ koy teewlu def naa yiw woo xam ne kiy jàng mi ngi koy am it ki nga xam ne day teewlu it yàlla mën na ko seddi ci a waaw suñ góor loolu moom wax dëgg yàlla moom xam naa da ngaa waroon jox gars yi sax ñu soññee ci ndax ñoom ñoom ñoom ñoo ciy sama kilifa waaye xam xam nañ ni daal moom mm-hmm. moom xasité yi moom daanaka mooy mooy lépp te mooy suñu lépp mm-hmm. li ñu sëriñ tubaa defal lépp maam ci biir xasité yi lañu ñu ko dëxëñal mm-hmm. kon képp koo xamante ni maanaam bëgg ngaa jariñu rek maanaam war ngaa war warmaal xasité yi waaye waaye waaye tam wor war ngaa wormaal ka koy jàng te sellal ko mm-hmm. waaye war ngaa wormaal barab ba nu koy jàngee mm-hmm. ndax Sëñ Tuubaa mi nga xamante ni maanaam moom moo tax ñu nekk li ñu nekk tey moom moo tax ñu toog fii ñu toog wax di waxtaan ak di waajal sax loo xam ne ñëwagut ba am yàqin ni danañ ko fekkee maanaam ci ndimbalam ak kàttanam ak yërmandeem maam ci la ñu yàlla suñu borom bàyyee ci kaw suuf ñu ciy dund ak di ci xalaat ak waxtaan ba léegi waaye bu dul woon ak jëm xese yi amaana sax loolee mën naa bañ a am mm-hmm. te moom Sëñ Tuubaa moomee maanaam moom moom moo ñu xamal ni ñu mbindum loxoom mooy ay kiraama maanaam karaamati xatti yet yi fi xidmati mu ay yet yi wa kaana lii bil af di yi moo lil karami te kenn ku nekk xam na ni mag ñi bu njëkkoon dañ daan dugg wa lu mat ñeen fukki fan ñii def fanweeri fan ñii def fukki fan ak juróom ku nekk ak euh, fa mbir tollu suñ borom ngir bëgg àgg ci yàlla mhm. suñ jowa bi mu ñëwee jële fi loolu lépp daan leen tuwasilu aqlaami ilallaahi haabidan bilaa xalwatin wallaahu ab xaakama ax mooy li nga xamante ni maanaam mooy dëgg-dëgg gaaw a àggale doomu aadama bi ci yàlla ci lu dul ngay dugg xalwa kon mbir la moo xamante ni wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ne dañ koy jàng nañuy yaraat suñuy jëmm yaraat suñu bopp xool li méngoog xasita ñu nekk ca waaye ñu ñi nga xam ne ñoo fa yéene teewe ca bis ba nañu xool li ñuy wootee muy bisub xasita ñu xool la xasitee méngool ñu fas yéenee doxe noonu ci bis ba loolu mhm. ñu maa ngi ciy soññ sama bopp di ci soññ sama mbokki jànkat yi mhm. waaye di soññ mboolem koo xam ni am nga yéenee teewee bis ba rek mhm. moom incha allah ñu xool la nga xam ni moom méngoog bis ba rek ñu nekk ci ndax liggéey Sëñ Tuubaa la boo xamante ni gëm nañ ni maanaam ku ci feeñ dootoo nëbb mukk waaye képp ku ci yàqale it moom moom amaana mën ngaa bañ a euh, baax leeti waaye yàlla nañ ci yàlla musal kon daal ñu ngi wàcce foofu kàddu yi di soññ ñëpp te ñaan ñëpp waajal ko le 9 juillet la incha allahu rabbi war a tombeek dimanche départ bi war a nekk samedi ci guddi bu mbindu jotee ñu ngi ciy woo maanaam mboolem mbokk taalibe yi xam ni maanaam incha allahu rabbi fas nañ yéenee dem ba wan tubaab yi li ñu sëñ tubaab defal waaye ñëpp xam ni carrément bis bi euh, ñu gërëm ko baax jëwrin sëñ Baye Cheikh Diène ci kàddu yu am solo yi nga xam ni moom la yëkkati mu jëm ci bis bi ko defee ñu ngi keneen koo xam ni ci jëwriñ yi la bokk suñu xaadim ja ràññee nañ ko baaxut yàlla ci xasaay di yan kàddu rek ngir jëm ci bis boobu nga xam ne moom la ñu waajal di soññee ci xasaay di waaw ñoo ngi nuyoo bu baax a baax di siyaar ñëpp di baalo àq ñëpp tey baalu àq ñëpp rek di wax ne li mat a wax lépp rek Baye Cheikh Diène wax na ko daanaka amatuñ luñ ci dolli xanaa di soññewaat bu baax a baax rek ci bis boobu ñu bañ koo yemaleeg yeneen bis yi nga xamante ne si moo fi jàll xam ne bis bu am solo la ci ñun ah, bisub Sëñ Tuubaa moom kenn waru koo yemale ak yeneen bis yi mm-hmm. di ñaan yàlla ñëpp fekk ko te tal ko kenn ku nekk Sëñ Tuubaa defal la ci ay xéewal yu kawe kawe sa njortu ba ak Sëñ Tuubaa mm-hmm. dem jàmm ñëw ci jàmm am ci lu suñ njortu ba ak Sëñ mm-hmm. maa ngi soññi mbokk taalibe yi yi nga xamante ne ñoo nekk ci daar ji ñëpp ñi ci ginnaaw ak ñiy toog ci kuréel géeg ñëpp rek koo xamante ne si mas nga bokk ci Touba Constitution rek ñoo ngi lay soññ ci bis boobu ah, nga waajal ko bu baax a baax a baax ci wàllum teew geeg euh, addiye jéeg euh, kenn ku nekk seet la gën a baax ci sa yére nga sol ko euh, ñu fas yéene dem ba jëmmal fa Serigne Touba bu baax a baax a baax loolu moom maa ngi koy sàkku bu baax a baax ci mbokk taalibe yi di wax ne maanaam pas-pas mënta weesu ñu toog fii dégg ay mbokki taalibe yoo xamante ne si ña nga foofu di sasoo ay ay un million ñii di sasoo ay deux millions kon nag ñun ñi fay dem bu ñu demee war nañ leen a wan loo xamante ni si maanaam comme kom comme comme comme ci wàllum yar ak teggin ak jàng xasida yi kenn ku nekk boo fa jógee daal fees dell ngir jëmmi Sëñ Tuubaa ñoo ngi koy ñaan ñëpp daal ñëpp jàpp ci bu baax baax rek kenn bañ koo wute barke Sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Xaadim bu ko defee kii ñu jàkkaarloo di yaakaar naa ñi min njàngum Argentine ràññee nañ ko ci laaj yu am solo dëgg yàlla muy jàng benn benn it defe naa bu fekkee xam naa njàngum sëñ May bi it yaakaar naa nu muy daaje dana ma ko jox ci air boo xam ne dañ koy ñaar ñaaroo mi daal di ràññee ko na ci loolu wax dëgg yàlla. boo defee sëñ Mbaye Mbacke Dieng yow it ñu ko mbokk taalibe yi waxee rek bis bi yoo xam ne te yaakaar naa li ci ëpp solo muy jàng xasaayit ba yéen yéen a ko yore bu defee rek euh, kàddu yi soññee jëm ci. waaw salaamaaleykum wa Euh, taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu di ñu seetaan yëpp fépp ci àdduna bi leen siyaare bu wér a wér a wér di leen jox seen wàccuwaay di siyaare siñ góora mi nga xam ne moom moo yor euh, wàllum euh, télé bi ñuy wax Touba Argentine TV nga xam ni liggéey bu rëy lay def ci dëkk bi nga xam ni maanaam li muy jàllale li nga xam ne moo jëm ci dëkk bi ci wàllum liggéeyal suñ Touba bi mu am na solo lool te taw feex na lool tey ñu rafle woon ko lool mu dikk dimbale <coughs> ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom def ci lu kawe njort ba mu doon télé boo xam ne télé bu ràññeeku lay doon ci àdduna bi ci barkeb sëñ Tuubaa ñu ngi koy ñaan ci barkeb xasida yi comme ni nga ko waxee nag suñ góora dañuy waajal loo xam ne dafa am solo te daa doon loo xam ne lu ñu ñor la te du lu ñu bëgg la tey yemalewuñ kook dara comme ni nga ko waxee rek muy bisu xasida bi nga xam day am le 9 juillet fële ca Cordoba euh, di soññ sama bopp di ci jiital sama bopp soññ mbokki taalibe yépp ñu waajal ko waajal gi nag mi ngi maa ngi siy jiital sama mbokk jànkatu xasida yépp képp koo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu maa ngi la ciy soññ li si njëkk mooy ñu waaj eh, dem ca bis ba eh, waaj ci wàllum njàngum xasida mi wàllum waaj ci wàllum yar bi ak teggi ni ak colin weeg yépp waaw xasida yi nag comme ni ko boroom waxee rek nit mën na cee mën na cee mën na cee defaroo waaye nit mën na cee yàqoo dañuy moytandiku bu ñuy jàng xasida ñun ñëpp ñu li nga xam ne moom la xasida laaj muy sell ak sol yére yu yiw tey bañ koo caaxaane nañ ko nañ ko bàyyi waale xel mm-hmm. maa ngi soññi sama mbokki taalibe bi yëpp daal ñu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax ba ba kenn bu mu ci man mm-hmm. ndax dañoo nar a xëy eh, dagg suñ temps rey suñ eh, suñ temps def lépp ngir ngir ngir bisu xasida bi kon buñ fa demee ngelaw nañ fa jëlee la nga xam ne moom lañ fay wuti woon mooy bu ñu demee nañ ànd akub yar ak i teggin euh, xaside yi nag boroomam dafa daf koo def waaye dafa am lu mu bëgg ak lu mu bañ. Mm-hmm. mooy bu ñu koy jàng nañ koy wormaal ñi koy déglu tamit di ko déglu ni ko boroomam bëggee woon. Mm-hmm. ndax kenn mus sa gis fu ñu koy jàngee muy waxtaan wala muy wax ak kenn sa jour dama koy soññe mm-hmm. loolu nag maa ngi koy commencé ci sama bopp ba ci ñi nga xam ne ñooy déglu ndax xaside yi njariñ li ci nekk dafa bëri li ci Serigne Saliou waxoon nooy ñi koy jàng ñooy ñooy ñooy ñooy jëmm ji. ñooy njanaaw li ñu koy déglu mooy donko yi mhm. kon ñi nga xam ne yàlla dogal na duñ ko jàng tamit war danañ ci amee li nga xam ne ñu koy jàng moom lañ ko amee ci kaw ñu ñu koy defee ci na ko boromam bëggee mhm. mooy déglu gi ak teewli gi mhm. maa ngi koy soññe bu baax a baax di ñaan suñu borom defal na ci ndam ci barkib sëriñ Saliou ñu ngi siyaare mbokki taalibe yëpp ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanamu kilifa yi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bu ko defee kon rek loolu moom lañ jël si woon fii ci kuréelu constitution ci seen waajaay ngir journée xasaayit ba sañ bi kon sëñ Cheikh kàddu yi mujj yi. waaw jërëjëf sëñ Gora xanaa ginnaaw bi ñu delloowaatee njukkal sëriñ bi santaat ko bu baax ci li mu defal ñu ngi lay sant bu baax yow itam ci sa disponibilité ak maanaam ñor gi nga xamante ni maanaam liggéey sëñ Tuubaa ñor na ñor na la ko waaye itam yëg ak nemeeku nga xam ne yaa ngi koy def ci sa. diggante euh, ak jànkat xëste yi saa su ne kon mu mel ni kàddu yi mu ngi noonu liñ fi wax ak ni fi sunu jëwriñ suñu Baye Mbacke wax suñu Xaadim wax mel ni lépp njëriñ la te it ab yóbbal na boo xam ne buñ ko sukkandikoo rek waaye mën nañoo mën mën nañ cee jëriñu ba jëriña ci kon mu ngi noonu ñu bokk ko waajal rek bis bi la 9 juillet bii di ñëw la di tombeek dimaas départ bi di doon samedi ci guddi bu mu nu jotee incha allahu rabbi di ñaan yàlla suñu borom defal ñu tawféex. ñëpp fekke ko ci jàmm ñu dem si jàmm ñëw si jàmm. waaye itam tase ci ak tawféexu Serigne Touba ak ndimbalam ak ngërëmam ba faaw barki Sewul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullah. وزور لمن كل بسارة لو رد الدون زود النصر سارة حمدي وزور لمن كل بسارة لو رد الدون زود النصر سارة